salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal wa safar salaatu dama ñëw tey Touba ànd ak une forte délégation boo xam ni ñenn ñi waa réew mi lañu ñeneen ñi ñu nga jóge Maroc pour euh, siyaare si xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ay Aïssa di ko siyaare ci événement boo xam ni solom ñëpp xam nañ ko du ci Sénégal rekk du ci Afrique rekk ci àddina bi yëpp la ndax tey li ñuy def mooy màggal xaadimu rasul Serigne Touba nga xam ni jëfam ci addina bi yëpp salaam solom mënuñu ko sax xayma mënuñu ko xayma ndax solo su su su su màgg la solo su mag la ñu kontaan nag ci ñëw ci wetu xalif général Serigne Mountakha pour def fête bi ak moom ndax pour ñun fête la def fête ji ak moom wan ko ni moom i tamit ku ñuy siyaare lañu ku ñuy sargal lañu ndax xalif la boo xam ni mu ngi indi ci biir askanam lu am solo ci kaw jàngal askan askanam ci kaw ñaanal askanam ci kaw li ñuy wax dugal ci xel yi ak xol yi li ñuy wax valeur jikko yu rafet te bëggoon naa laal sax la mu def ci mbirum Covid 19 bi mbas mi foo ko gis mu ngi takk masque foo ko gis mu ngi joxe ay ordre pour nit ñi respecter mesures barrières yi jël loxoom dugal ci poche bi tibb xaalis bu bare ne faj leen mbas mi loolu dañ ko ciy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla may ko wér yàlla dolli kattan wi yàlla may ko fan wu gudd gudd gudd ndax mission la nekk mission bi mu ànd ci ak yéene ñu ñaan suñu boroom yéene googu mu yegg ñu jot ci loola ma taxoon a ñëw fii Touba may sant lu bare bare bare waa situation wu koom-koom ci réew mi defe naa ñu sorewul li xew feneen ndax kat mbas mi dafa ñëw jàllaa ñoo yëpp jaxase yëpp ba ñëpp xam ni yaakaar ni ah ndóol bu ñu maytuwul mu dal ñëpp moo tax euh, man bi ma euh, président de la république resevoir bi mbas mi di door dama ko ni li ma yaakaar moo di ni nañu moytu léegi wala wàññi boog bu baax a baax a baax di dem bitim réew di xool ca ñoom di tibb ca ñoom pour suñu koom-koom mën a jëm ca kanam parce que ñun ñoom li ñu am ñun am nañ ko xëy na ñoo leen ko ëppale kon boog suñu xalaatalee suñu bopp xalaatal suñu bopp jëfal suñu bopp mën nañ cee génne su soobee yàlla xam-xam baa ngi fi mën liggéey bu rafet mu ngi fi léegi li ñu war a dooleel mooy jikko yi parce que jikko yi lu yàqu ñoom la foofu rek laa xam ni euh, voilà li ma ci mën a mën a mën a dolli salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar